fi loolu te ànd ak wér di ñaanal xalifa généralu Baye Fall di jaar bu baax it sëriñ Cheikh Ndigal Fall mii nga xam ne rajo baa ngi ci wetu këram jàkkaarloo Pénjum Paline fii ci asalaamaaleykum 99 point 0 à Touba di jaar bu baax suñu wayjur sëriñ Basiru Lo xalifa sëriñ Modou Fallo di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér di jaar bu baax suñu président regroupement euh, regroupement transport président Idika di ko ñaanal suñu borom saafaraal ko yaram delloo ko ci sagoom di ñaanal bu baax sunu président fédération taxi de di président Pape Seck nga xam ne émission bi passé moom lañu dalaloon di ziare bu baax président Pape Ndao moom it jiite ci fédération yi benn di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér di ziare bu baax a baax seexi Serigne Touba yëpp ak Serigne Seck kilifa yeeg ñëpp rek di ziare njiiti transport yeeg président garage yeeg ñëpp di am mbégte bu baax a baax di ziare Serigne Makhtar Diaw di kenn di kenn ci président fédération yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi daa jiite fédération boo xam ne lëkkale a garage yu bëree bëri macha allah di am mbégte ci daalal ko tey jii ci émission fii ci Assalaamy FM 99 point 0 seen rajo télévision Assalaamy tama seq kook sama noo naataango sama doomu ndey sëriñ ale mangaan borom jolof ñu ngi koy ziar bu baax baax di ko jox wàccu waayam di ziar bu baax sëriñ maxtaar di sun magum taalibe di sun euh, mag ci métier mi aussi di sun magum taalibe ci daara jëg lépp daal kon ñu am mbégte ci dalal ko tey jii di ñaan sunu borom lépp loo xam ne waxtaan nañ ko fi yàlla doon loo xamante ni dana jëriñ ci euh, saayiran wa baatinan di ziar bu baax a baax sëriñ ale mangaan bisimilah nga def sa présentation euh, comme ginnaaw baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu comme nga waxee bu baax xalifa général des moom sëñ Mountakha Mbacké xalifa général des Baye Fall ak kontaan bu baax nag ñëwaat ci émission bi di nuyu tamit président Pape président Idika comme ni ko waxee di président président Pam Ndong ak suñ suñ président bi suñ invité président Matar Diaw comme ni ko sëñ Dame magam taalibe suñu ci moo tax tey ñu invité ko pour gëstu si ay xam-xamam ndax mag la si métier bi bon ñu koy wax dalal ak jàmm. jërëjëf euh, sëriñ Alé jërëjëf présentation bi am na solo lool ñu ngi bu baax di la baalu ak di la baal ak di la ñaanal di siyaare soxna ya di siyaare waa Jolof gépp di siyaare bu baax président Pape Binta Gueye ñu ngi koy siyaare bu baax aawa buuru këram di siyaare bu baax Serigne maxtar Diaw kon Serigne Makhtar ñu ngi lay siyaare ngay kenn ci président yi nga xam ne yaa jiite euh, ci fédération taxi di fédération bu am solo lool boo xam ne maanaam ay ndaw ñu am xam-xam maanaam te yaru ña nga ca ñuy siyaare bu baax di la dalal tey ji di la wax sëñ Makhtar bisimilah ci studio bi di la wax ne nga def sa présentation ak sa nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, man la maxtar Diaw maa ngi ziare euh, xalifa général sëñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal fan wu gudd ak wér di ziare bépp xalifa boo xamante ni nekk na ci dëkk bi di ziare nag sama bunt ci sëriñ Touba muy sëriñ Amsatu Jaxate moom sëñ Xaadim Jaxate moom sëñ Abdoulahi Jaxate moom sëñ Amsatu moom sëñ Touba. di ko ñaanal fan wu gudd ak wér di ko wax ni ñu ngi koy ziare baax a baax di ziare secteur bi nga xamante ni nag moo tax tey ma teew fii muy secteuru transport ci bopp bi ñu idika di ko ziare di ko ñaanal wér bu baax di ziare Baye Khadim Guèye Baye Pambay ak ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ci secteur bi di ziare sama doom ndey nag Pape Seck di ko bégg lool nag di ko ñaanal fan wu gudd ak wér. di ziare Pam Ndong bu baax a baax suma doom lay la moom tamit jiite secteur ci taxi mi di ziare ñëpp ñi nga xamante ni daal euh, ñi ngi yëngu ci taxi mi euh, di ziare ñi nga xamante ni ñoom laa teewal fii tey di ko teg ci loxo sama vice président muy Moussa Pouy bu ko defee mu jàllale ko euh, di sant nag sëñ daam jataay bi Ali Mangara ñu ngi leen di ziare baax a baax a baax dégg naa nga di ma tëkk waaye incha allah <laughs> dana neex bu soobee yàlla jërë ngeen jëf. jërëjëf Serigne Mokhtar am xam naa ne yéen ñaar moom. damay na si diggante bu doon xool su ko defee nag incha allah. su ma gisee li ma li fii ba ne woon bu wàcc caayi kenn laal xam naa ne moom sëñ <laughs> Aane <laughs> moom. sama doom ndey na waaye daa xaw a yéeme waaye nag loolu yëpp métier mee ko laaj. Mhm. ndax day koo xamante ni moom macha allah dafa bëgg métier mi. Mhm. moom dundee wut métier mi day dundal métier mi. Mhm. ndax man mii di wax ak léeg-léeg lu bare bari ci métier mi mhm. damay jekki-jekki daawal sama oto ba gaara sam yëkkati lu diis teg ko ko mhm. daan na ko nag te xam nga man ni wataangee soxla daan na ko ne jóg a jublu mhm. <laughs> mu daal jóg daat ci dox wax ci ba nga xamante ni macha dañ koy am ni ñu ko bëggee muy ku am ku jàmbaare lool ci wàllum intervention waaw loolu moom fii ci télé bi ak bi ci laa koy waxee ñëpp di dégg jàmbaare lool ci wàllum intervention mhm. euh, te xam nga chauffeur moom saa yu tollee fenn fi rek mhm. euh, saa yu gëstoo gis ku ko dimbale loolu moo koy dimbale émission bi nag di di émission euh, jeetaayu transport mhm. jeetaayu transport nag buñ ko waxee fii ju Touba ci rajo Assalaamy télévision bi ñu dalal di Serigne Makhtar Diaw kon def nañ li nga xam ne moom moo ñu war muy kenn ci acteuru transport di chauffeur di chauffeur transporteur aussi di ko xamante ne fonk na métier mi bëgg na ko. Mhm. wàccee boppam na ba mën a ànd ak gone yi bu baax a baax a baax. Mhm. te ma Matar fi ne nii secteur taxi mi am pëcc xool lool lool lool lool. Mhm. am pëcc xool ba nga xam ne fi nii daal xaw naa yéeme xam naa nag yéen a ngi dox ay jéego yu rëy rëy te jiitew chauffeur dafa xaw a métti léegi nag euh, pëcc xool boobu noonu. dégg naa daal bi ma daal daal lay président Pape wax na ma ko ci da tollu ci di identifier jëmmi taximaan yi. waxuñu taxi taximaan yi ci ngeen njëkk a mm-hmm. ndax loolu liggéey bi fu mu toll suñ mataar dëgg-dëgg fu liggéey bi tool bëggoon nañ ko xam. Mm-hmm. ndax daal nañ Pape Seck ba nga xam ne am na yu ci leeral a xam yéen fu mm-hmm. ak ndax liggéey bi yéenoo ko ànd walla déet. waaw du du yem ci wax la maanaam li waral loolu laa lay njëkk a wax parce que jàpp naa ne bu fekkente ne secteur bi xalaat nañ ci affaire bi déparé wul woon ci defar ay kart dañu nekk ci dëkk boo xamante ni ñu am fi benn maire muy Abdou Lahad Ka mu am pas-pasu jàkkale jàppale ñu nag ci liggéey bi ñuy liggéey ay jëmm jamono ñu ni woon il faut ñu réglementer taxi mi ñu wax ni dañuy def ay vert blanc ñu ni taxi yi bu ñu ko defee vert blanc bu génne ki am këyit bu boobaa mën nañoo am ay coona ñu dellu waxaat ay numéro portière ñu reseté ko na mënoo nag nekk ci dëkk boo xamante ni eh, lépp lu ñu indi rek. nga ne ta li ñuy wax naan tànk day banque wala mu tàlli ci lañ door a xalaat ba indi lan moo lan moo indi loolu lii moo indi affaire carte yi ñu ne il faut ñu identifier nit ñi parce que pëccëxoo bi metti na te xëy na lee am na ay projet yoo xamante ne maire junj na ko ñun ñëpp ñu toog ñu itam ci benn bis def nañu juróom benn réunion yoo xamante ne maire yi yoo xamante ne responsable yëpp fekke nañ ko ñu waxtaan ci lii ba tënk ko maire xalaat ci boppam ni carte yi bu ñu ko amee mën na modernise taxi bi ñu ni kenn ku ne dañ koy identifier ca garage ba mu bokk te pour nga bu am ci carte yi da ngay bokk ci ab garage am fa adhérent garage ba foofu bokk ci fédération nga xamante ni carte bu ñu ko defaree dañ ciy def sa lépp même garage bi nga xamante ni moom nga bokk dañ ko cay def nga xamante ni bu boobaa ñu jàpp ni bu ñu ko defaree ba mu àgg ki nga xamante ni taxi mi nekkul woon moom loolu du ko jaral loolu moo tax ñu indi lii bu ko defee nga xamante ni kenn ku ne da ngay photocopier sa carte d'identité photocopier sa permi def sa adresse ci suuf jox ko sa président garage mu jox ko fédération ba ñu yóbbu ko ca mairie bu ko defee fii la ñu ci liggéey bi maanaam ci li ma wax fu ñu ci toll ci dox bi mooy retard am na ci mairie moom. wàllu liggéey ci wàllu liggéey wax dëgg yàlla parce que man. du mais du gàtt yi ni muy ni muy kii moo moo gaawut dañ koy tiré moo gaawut moo gaawut ndax mën naa ne chaque jour ñaari fan ñett yi ne ma dem mairie te man lu mu gàtt gàtt man kese rek dugal naa lépp ñett téeméeri carte te bu ma la waxee sama axotaalaay bu ma jotee 40 ndegam jot naa ko ci la yem. kon dox bi dox bi moom wax tey dama koy wax tey de. question bi question yi leer nañ mhm. comme ni nga expliqué nii mhm. leer na mhm. waaye dafa am benn question bu tëb boo xam ne jotoon naa leer na xam nga dañ na euh, président Matar Diaw ñu bëggoon xam kan mooy président Matar Diaw waaw président Matar Diaw euh, ab ndonga la boo xamante ni xam nga boo boo li tax ñu wax ko mooy saa waaye dafa tëb tëb rek dal dal dal sa kàddu waaw bi ngi waaw ñu ngi lay dégg te xamul la. Mm. loolu dëgg la jaw man de maa ngi juddoo Ndar. Ndar waaw fa laa juddoo. Mm. Euh, ku ñuy wax Samba Jaw mooy sama waajur. Mm. mais ci dëkk bi. maa ngi fi fekk si woon sama baay Modou Fall moom sëñ Saaliwu. baay Modou Fall moomu nag jamonoy sëñ Mamadou Jaxate bi muy yor comité dalu Touba bi moom moo nekkoon vice président bi. Euh, moom la Serigne Saliou dénkoon suuf si itam mu di ko joxe. Mm-hmm. moom laa dalal si woon Touba jamonoy sëñ Maodo Jaxate ma nekkoon ci booba mairie amul comité rural moo am. liggéey naa fa juróom-ñetti at nekk fa ak moom. ci loolu laa continuer ak moom ci dëkk bi. Mm-hmm. ba suñ borom doxalee mm-hmm. ñu dem ba Serigne Saliou nekkatu fi. moom it mu wàcc bu liggéey. ma dugg ci secteur taxi. taxi. di tax maanaam maanaam euh, question bu maanaam. waaw yow maanaam da lang wala wala da ngaa tëb tëb. wala languma. Mm. ci daara yi laa nekkoon. daara nga nekkoon ci daara. waaw fa nga fa laa jàngee. tracteurs yi ci laa jaar ba ah, waaw damay ba ba ba ba ñëw ci oto yi. ba ñëw ci oto waaw waaye languma. Mm. waaw languma moom. jërëjëf sëñ Matar am na solo <laughs> am na solo sëñ Aale moom xam nga lii tax moom moom ah, daa jigéen mënut a ñàkk incha allah incha allah mënut a ñàkk ci mbir mi jërëjëf sëñ Matar loolu ah. xam naa ne question bi mu laajte mm-hmm. da nga ne jiite aw mbooloo mbooloo mm-hmm. moom jàgg a dégg sëñ Matar te bëgguñu xam koy sëñ Matar waaye mm-hmm. question bi moom du question ndax moom xam na dëgg-dëgg sëñ Matar moom mooy kan ah, kon sëñ Matar li nga wax dégg nañ ko ci li nga xam ne nii mooy retouru carte yi mu yeex lool mu yeex lool léegi xam naa ne ñoom ñi ko yor lool ñu ngi dégg mm-hmm. parce que loolu dama la koy accepter aussi mm-hmm. parce que man ñii di wax yow en tant que le vice président du fédération mm-hmm. jusqu'à présent bu jotuma benn carte bu jëm sama garage te bindoon nañ depuis loo xam ne na xaw naa yàgg loo xam ne xaw naa yàgg kon mel na ne loolu bu ñu si jàppalee dana baax lool incha allah waaye léegi président euh, Matar Diaw fii dañoo jublu benn animation religieuse bu am solo muy grand magal di Touba te bu ko tudd grand tudd taxi. Hmm. xam naa nag loolu après dama koy bàyyi sëñ aale hmm. mu waxtaan ak yow ndax am na ñoo xam ne aussi ñu ngi leen di sànni xeer di wax ne da ngeen di fay ko lu seer te loolu nag hmm. man du ma ko weddi après loolu ngeen waxtaan ci te taxi yi ñoo seer nangam ak nangam léegi ñu wax yéen lan moo gën a doon seen jafe-jafe ci màggal gi loo xam ne man xam ne lii jafe-jafe la bu muy dund te rafet na njort ci ne lu war a mën a saafarawu la loolu bëggoon naa indi ñu ak leeral ndax da nga toog jiite aw mbooloo kon boo demee ba toog fii ñu ñii di la déglu ak di la seetaan war ngaa mën wax li nga xam ne mooy seen jafe-jafe bi nga xam ne dañ koy dund biir màggal gi waaw loolu moom dëgg parce que dañuy am jafe-jafe bu baax moom jafe-jafe yi nag li ci ëpp euh, bu ma yeboon yi dañ dul bokk ci waajkaayu màggal hmm. du bu ñuy waxtaan plan circulation bi nga xamante ni moom mooy am. maanaam du du leen woo man du ko dégg fenn waaw yooyu duñ du ma dégg dara. te normalement. Mm-hmm. Ah, waroon nañu am représentant boo xamante ni. Ah, di waaw ah, man man man laa wax du ma yëg. mais li wax na ko fi. ah waaw waaw waaw man du ma mm-hmm. moom bu yëgee kon waxuma mm-hmm. te xam naa ne bu ngeen ko daal dégg naa mu jàmbat ko. parce que dafa am loo xamante ni. ñun. il fallait que ñu dimbalee ñu ko. mooy jéggi. xam nga ñun duñ sonal kenn ci kaw tëli mm-hmm. ñun taximaan parce que dañoo miin Touba mm-hmm. ki miin Touba mën na bañ a nekk di buuxante ci kaw tëli bi mm-hmm. mais jéggi moom mënul ñàkk te loolu jàppoon naa ne bu fekkoonte ni doon nañu ci woo dinañ xam lieu ëpp importance pour oto yi di fa jéggee bu ko defee bu boobaa doontale jeunes yi ñoo fay nekk itam dinañ fa teg policier boo xamante ni dafa miin Touba daal xam sécurité bi xam nu mu demee te loolu daf ñuy est-ce que loolu nekk mun na nekk. xanaa la rek xam nga xam nga dafa am lu ci nekk mooy. waaw yow Touba. Mhm. xam naa du du du màggal gi jëm moom lu lu ci lay réglé. waaw parce que ci man système bi ma gis mooy. Mhm. tey jii boo ne woon ku yor taxi lampe. mën mhm. nga fu la neex jéggi. da nga dégg waxuñu fu la neex. déedéet du ma la déglu fu la neex jéggi déedéet. du fu neex. dama ne la dañuy dañuy def plan. waaw. wax ni béréb sàngam dees na fa jéggee. waaw béréb sàngam dees na fa jéggee. waaw bu boobaa kay du. fi non yéen maanaam yéen fi ngeen bëgg a jéggee fépp fépp fi ngeen jëm client si biir si biir bu ngeen sañoon tey jii. si biir si jumaa ja ngeen jëm. déedéet <laughs> non jumaa ja ngeen jëm. arrangé wul taximaan. amul benn taximaan boo xamante ne dina dem jumaa kon taximaan bu la fu la neex jéggee. waxuñu fu la neex maanaam maanaam si nga buy buy buy màggal lu jub si. Mm-hmm. buy màggal lu jub si nii. Mm-hmm. maanaam commandant yi kii di ñoom xam nañ plan bu Touba bi ñoom dana teg si xam ne ba teg seen plan boo xam ne hmm. fu nekk dana daan xam ne nii buñ ko jéggi dana dana du baax hmm. mais taximaan tey jii boo la woon tey jii nan bàyyi taximaan ku neex comme ni nga wax joxoo bi nii hmm. comme li ñuy wax nii boobaa man dama yaraman su ma naree kii moom ma jënd ab lampe teg bu fu ma dikk jéggi fi mu toll nii man li la jàpp mooy bu dee bu organisé ba xam ba ñu xam taximaan am nañ seen lampe bopp boo xam ne mu lañ identifié te lampe bi bala nga am mu xaw a jafe nga bokk ci garage su boobaa dan xamee làmp yi ñu xam ne lampe bii kat ci taxman la ñu mën a jéggi. mais màggal moom. Hmm. du taxman Touba rek mooy tax. màggal wooteeb Serigne Touba la. Hmm. dëgg la ñëppay ñëw. Hmm. mais taxman bi. di tax. dafay am am am lu lu koy bu dee bu dee zone la xam nga ni zone noire. bu dee taxi Touba yi lamp lañ yor. waaw mais lamp lamp yi daaw yomb lamp deux mille francs day nga xam ne kii zone noire la. mais boo ñu boobu ñoom fi ñuy àgg. waaw. bu boobaa. tax taximaan la rek yor na làmpam. parce que màggal gi la. waaw parce que fi mu toll nii da nga koy xool ci ñi ñu bokkal euh, yoon yi. waaw bu ñu àggee ci màggal. lu transport rek mooy yëpp. waaw. am déet. waaw day jaxasoo. waaw <laughs> kay léegi nag mooy li ma la ku ki nga xamante ni maanaam jaral na ko ba mu jënd làmp. doon tax taximaan moom na dañ koy gérer ak màggal gi ànd ak moom. dëgg la bu ko defee ñu comme par exemple ni ma la mën a waxee xam nga fii fii fii la ñu nekk. 28 mu ma yeboon. waaw fi mu toll nii arrondissement Ndam. Mm-hmm. bu ñu ñëwoon arrondissement Ndam am na jéggikaay benn foofu na foofu foofu def nañ fa jéggikaay ñu ni léegi boo demaatee ba weesu AC euh, garage bu njëkk ba am na jéggikaay am na jéggikaay pour dem Mbàkke mooy avant ngay àgg tëli i bëggee wala ñu ni tëlee bëggee am na foofu jéggikaay loolu rek doy yow nga xam ko bu ko defee yow saa soo bëggee dem ndaamaat nga xam ne foofu ngay jégee bu dee garage daaru yoonu Louga bi ta tabla soxna may tali boobu ñu ni foofu am na jéegi ba demee ba forage ba ñu ne am na jéegi jeex na noonu rek la bu ko defee ñoo xam ne fii ay jéegukaay la dëgg la leer na léegi nag man dama bëggoon ñu ñu lancer wax débat bi ci ah. ci ci ci ci wàllu maanaam seen fe kii fédération yi mhm. ndax damay dégg lan lan lan sax lu ñu bind si kii sax union union mhm. te chaque jour damay dégg ne union bi de des na waaw des na moom waaw. ndax yaakaar naa ñetti fédération moo fi nekk. te ñaar ñoo ñoo ànd ko. Hmm. léegi loolu loolu la la la la lan moo ko téye la mooy problème. ah lan mooy problème bi. Hmm. mooy dañuy dañuy dañuy nattante rek di waxtaan. déedéet nattante xoolal xam nga yéen yéen su su ngeen da da ngeen bëri jiit jiite mbooloo. waaw te yéen ñett ñi mën a ànd mënu ngeen a ànd. Hmm. lu lu ngay natt amul natt. am na xam nga xam nga xam président xam nga xam nga lu gën a kii mooy. Mhm. ngeen ne ci kanam pare bëgg sa da da dam yi. non soo ngeen jàkkaarloo ñu ñu ak ñoom li li nekk. man na li ma gëm mooy. waaw yow li nga gëm waaw. Mhm. mooy man moom. Mhm. wax dëgg yàlla bu dee sama paaru bopp man. man ànd na ma ak ñëpp. déedéet. xaaral xaaral xaaral xaaral yow yow si garage euh, fédération PAM na nga bokk. waaw lu la ko jëlee. non non loolu moom ñàkk bokk ay gis-gis la rek. ñàkk bokk gis-gis. waaw du man maa du man rek maa fa jóge mais ki ab kii ngi. waaw daanaka bu ma yeboo ni man ñi nekk ci sama fédération. ñëpp fa lañ jóge waaye loolu nag maanaam doxin wi. léegi question ba léegi kii ko pare. union des fédérations. union des fédérations loolu. ñu ngi ñu ngi ciy dox. waaye nag wax dëgg yàlla dafa nekk loo xamante ni nag mënul xëy xëy sotti. Hmm. parce que daje nañ ci ay daje yu bari. dem nañ ci sëñ dan daja fa dem nañ ci maire fi mu toll nii pour l'instant nii ma la mën a waxee. Mm-hmm. maire moo ci des. après maire. Mm-hmm. élection la ñuy dem. Mm-hmm. non man nag man nag damaa jàpp ne. Ah. gannaaw yéen ñett yi yéen a bokk li ngeen ñu xeexal. waaw mooy yéen li ngeen ñu xeexal mooy supporté ngeen ñu xeexal. waaw mooy métier yi ak ak ay intérêt. waaw man jàpp naa ne. bu ci intérêt amul. ak naxante amul. war amu ci. war war war ngeen a mën a ànd. président Alla mais du foofu moom maa fi toll maa fi tontul Baye Matar. te eh, tontul ah. si si si parce que. question la boo xamante ni xam naa ne bu ma la bàyyee fi nga jëm moo xam naa ko te question c'est trop facile mm-hmm. exemple rek réew mi ñu ko doon laaj kan ak ko doon laaj ba léegi non non déglu wax la mm-hmm. pour piloter rek la parce que lépp piloter ngay doon mm-hmm. da war di doxal mais kenn ku ci nekk boo ñëwee di campagne doo taxaw ne man rek doo taxaw ne diw mi man jox la man ngaa taxaw ne jox leen man ka baaxal ko mais dangay ba pare. waaye man man soo wax boppam. man damaa jàpp ne maanaam ñoom ñu wax nii. élection mënu mënu mënu koo jàllale. xam nga tax. mooy fi toll nii boo wax ci ban ci ban contexte la ñuy la ñuy demee élection ñoom. contexte yi yomb na. ban hmm. carte. Hmm. benn déedéet may ko waxal. fi mu toll nii bu ñu doon demee ay élection hmm. président yi mun na mun nañ mun nañu voté. waaw ci li ñuy voté. xam nga voté carte lay doon. ah non non dañuy wut ka day am carte kay boobaa. carte maam ci waa xaaral union fédération daa bu ñu doon wote hmm. dañuy dañuy bind liste. bu ko defee président yi. garage yi nga xamante ni. dem nañu ba ñu nangul leen. nga xam ne am nañu GIE tegu ci règlement. bu boobaa garage yooyu président yi ñooy dem bind ci liste bi. mais GIE war na mën a wote. waaw mooy GIE mooy mooy loolu GIE. yow boobu bu ko déggee naan comme grand électeur lay doon. waaw mooy président bi wala. wala soit carte yi nga xamante ne moom la ñuy defar muy carte chauffeur yii. waaw union i eh, ñu wate ci. autorisation circulaire yi. boobaa nag dañuy bindu. yow mi mu jaral ngay chauffeur am sa carte. da ngay dem bindu ji maanaam euh, boobaa da nga gis koo xam ne dana bëgg man su ma la man Pape Seck laa faral Pape Seck mën naa mën naa mën naa jël Adama Ngane bu nekk sama camion sax. déedéet parce que carte bi carte bi sama identifié non non carte bi chauffeur camion amu ko taximan a ko am non waaye déglu ma xam naa bu baax li nga ah, hmm. hmm. kooku da koy wateel da moom ba sëñ sëñ sëñ Dame Lo da koy bind ci garage non non non fi mu toll ma la wax bu ñu warante nañ wax lu rek lu lu dëggu ah. dafa am loo xamante ni hmm. nit ki nga xamante ne lu lu di moo ko neex kooku moom munoo munoo fexe ba du mm. jubadi. ba du mais man sama gëm-gëm ak li nga mm. li nga xamante ne moom laa gëm. te mm. yaakaar ne jàpp ni moom la ñi ma àndal gëm ko. ak ñi ma séqal terrain bi. mooy képp koo xamante ni sëfoor nga. taxi am sa carte bu boobaa yow yaay wate. sëfoor am carte. taxi sëfoor taxi nga xamante ne da ngay dem yóbbu sa carte. bindu bu jour wate ba ñëwee nga ñëw wate. baa ñu ni léegi président garage yi ñooy wate. baam baam mag ñi nga xamante ni ku ci mel na maire ak ñi mu ñi mu àndal ñu seq transport bi. Hmm. ñu toog comme nañ daan tooge waxtaan. xool ci suñu biir kan lañuy jiital ak kan moo cay topp ñu liggéey jox ko mandat. maanaam ñu waxtaan. constat. ba bu juboo rek. ndax bu juboo. te boobaa kenn tamit ku jiital ñu xam ne kii kii moom. man man man nag bu dee mën a man. man loolu ma gën a doon. Hmm. ñu waxtaan ñu waxtaan bi que waaw non dañu dama dem li ma gënal ndax bu ñu ko defoon ñun ñëpp ñun ñett ñëpp daañu bokk siq liggéey bi ànd ko liggéey ndax man fon fornage yooyu ne ah. sëñ dan woo sëñ sëñ dan woo woolul neen ah, waaw mais loolu loolu loolu moom loolu moom waxtaan la rek ah. ba tey ndax euh, man moom man yilifuma man ñi ma àndal pam ndoog yiliful ñi ma àndal hmm. kenn ku ne da ngay dem sa tere waxtaan ak sa waa euh, sa sa ñi nga àndal rek hmm. xay na comme kilifa yi dugg nañ ci mën na am parce que maa ngi dégg ci laajkat mu ni am kilifa bu toogoon di ko wax mu ni ko xoolal li ma daj ci yéen du ma ko daj ci ñii te ànduñu. Hmm. te yéen a ngi nii ànd. Hmm. sareet yi li ci daj. Hmm. du ko daj ci ñun te moom moo toog wax ni tey bu soxlaa juróom-benn nit lay woo ñu daje. ñun tey bu soxla woon ñett lay woo. kon kon kon kon wax dëgg yàlla. conséquence amul. boobaa da ngeen défendre intérêt taximaan yi. ba ngeen défendre man sama bopp de man. Hmm. Aliou. Hmm. lépp loo gis ma yëngu jël xaw waxuma waxi kaar waxuma waxu super waxuma waxi dara. man taxi laay wax ba ba xam ne taximaan yi dañoo sonn Touba. xam waaw waaw waaw nag sonn nañu waaye nag euh, am nañ loo xamante ni. jumaa ji amul ñoom amuñ droit sax. ki naan arrêté leen ñu ñu ñu ñu taxaw jël. loolu yëpp ay waxtaan man boo gisee ma sonn ci ñu ànd doon benn hmm. mooy loolu dafa bokk ci ma naxari yow li nga fi daal yëpp damaa naxari hmm. waaye pour ñu régler ko il faut ñu ànd doon benn <laughs> àndaloon ki ci ci yéen la yéen ñetti président eh, waaw waaw nag aar ah, yow tamit nag ah kenn ku ne dangaa jiite mbooloo waaw mbooloo bi amuñ problème de noo am nañ problème yéen yéen ñetti président yi ah, am nañ problème parce que wax nañ fii ba tënk waaw am ku dem ñëw nii sans mbooloo nanguwuñu kan moo kan moo kan moo kan day am chaque jour kan la day am laa la wax non déedéet woo xoolal. xam nga kon kay kon kay mbooloo ci la kenn kenn ba danaan kii la. mbooloo mbooloo mbooloo yi. foofu ñu sóoraale dama ne yéen ñaar. ñett ngeen. Mm. da ngeen am ñaar ñaan. Mm. kan la man man moo beddeeku. non beddeeku amul. waaye ànd am. ànd am na. léegi man noonu noonu. ndax ñun ñett ma li ma la wax nii ñun ñett ñëpp bokk nañu toog waxtaan ba dënk suñu mbir ci këyit bind ko. wane ni ànd nañu. dem ci sous-préfet toog maanaam li gën a garaaw toog ngeen ak maire. waaw waaw. yéen. waaw yéen ñett. waaw ngeen yéen yéen kii bi maanaam. Mm. Euh, union bi bi ngeen koy wax. Mm. yéen ñëpp ñépp ci d'accord. Mm-hmm. ah. waaw ngeen ñu convoqué na beneen réunion. Mm-hmm. ngeen ngeen ngeen waaw ngeen ña ñaar ñëw. ngeen ngeen ñàkk ngeen ñàkk d'accord ñu sëñ dan woowaat leen. Mhm. ngeen waxtaan ba juboo mhm. war a dem sa sous-préfet. Mhm. am am am am am ku ko gàllankoor. mais loolu yëpp loolu yëpp mooy li ma la wax rek. mbo moom li mu li mu wax. dama koy nangul. en tout cas mbooloo moom la wax ni mu àndal. dama koy nangul. maanaam mbooloo ñu dakkurut. ñu dakkurut loolu la wax loolu la loolu dama koy nangulul. waaw si mooy dëgg. en tout cas en tout cas Pam Ndong. toog nañu mairie. mais li wax dama koy d'accordal mu ni moom ñi mu àndal ñoom ñoo gàntal loolu ni ko sëñ dan reconnaître loolu ba nangul ko ko man noonu laa koy nangule man tamit parce que man mii sama mbooloo bu ma demoon ñu wax ma ko itam wax dëgg yàlla ay li yowoon loolu waaye nag comme yàlla dogal na sama mbooloo ñu ñu ko tëggee ñun ñëpp ñu bokk ànd yàlla dogal na dëgg yàlla lépp lu ma def wala lépp bépp woote ma ciy am sëñ Dame ñu ngi ziar. ñu ne ko Saale ba. Modou Sall ak Sall Ndiaye. Modou euh, Modou. Sall Modou ah, Sall président santé. ñu ngi lay ziar bu baax sëñ Modou. delloo naa leen bu baax. bisimilah. ngeen defee coono yi. ñu ngi sant yàlla bu baax sëñ Modou. ah seen émission bi ñun ñoo ngi koy rafetlu dafa leen bëgg a daa dafa daj. dafa am. dafa daj xam naa taw bee tax. ah dëgg la taw bee tax wax nga dëgg ñu ngi si jóge lu baax. waaw am amul solo jégal na bu baax. waaw bisimilah sëñ bi lu bari. di nuyu sëñ président Matar Diop moom. sëñ Mourou Ndiaye ñu ngi lay ziare bu baax incha allah. ñu ngi lay ziare baax na ñu di kontaan ci émission bi. bisimilah. di rafetlu waxtaan wi lépp ñuy teew lu bari. Mhm. xëy na taw boo xaw a dëgg rek. dëgg la. di rafetlu question yi xam naa tamit lépp mm. li ngeen wax ci wàllum carte yi moom dama ci dama koy rafetlu. Mm-hmm. ndax wax dëgg yàlla carte yi moom mairie ñun def na suñu devoir waaye mairie ñu xaw a ci dal. yoo xam ne am na yéex-yéex. daa am yéex ndox lool. Mm-hmm. man mii sama gaal fay ji rek ñu ngi na ci en mm-hmm. naa ma carte yi man leen ñu ngi ñëw ñu ngi am na ñoo xam génn de waaye man ñi njëkk a laa bokk la. dëgg la. mi président man su amul rek. ñu ne ci man suñu amoon benn sax wala diis rek baax na. day daal day daal xel bu bëri. loolu dëgg la. waaw trop que pyramide tamit wàllum màggal plan circulation màggal bi ngeen doon wax mm-hmm. loolu lu jara lu jara xoolaat la mm-hmm. parce que màggal pëcc ko bi day bëri pareel mm-hmm. yaa ngi fi oto yi nga xam ne fa mu ñu dëkk baax rawat na yi nga xam ne dañuy ba ci kaw mbedd bi ñu def ay tànt wala nga jël sa bis ne ba ci kaw bul rosaan xam nga yaa ngi baar circulation yi beneen bi tamit wàllum période bi day day seer seer ay taxi moom loolu mun a ñàkk xanaa ñu gën cee def xéwal di encouragé taximaan yi. Hmm. ndax liggéey màggal Tuubaa moom kenn ku ne xam ne ñu ngi demee. dëgg la da ngay boo boo war a dem boo dem liggéey far dem jumaa ja. dëgg la war fee am cinq minutes yoon yi. Hmm. da nga fa am quinze minutes wala vingt minutes. boole ko déviation bu métti. aussi te lii tamit buñ ci mënee jàppale toj na xam ne. Hmm. waa Afrin moom xam naa ne. waaw jërëjëf sëñ ne lim bi moo. hôpitalu euh, Ndiaye mm-hmm. bokk ci fédération Baye Mokhtar xam ko daal di di borom mm-hmm. parce que euh, euh, mën naa ne tey fédération bi nii bokk na ci ñi nga xamante ni mm-hmm. ñoo ko njëkk a fondé ñett ñi nga xamante ne wala ñeent ñi ko njëkk a fondé bokk na ci wax dëgg yàlla di ndaw te jàmbaare lool nag ndax wax dëgg yàlla ku ñu yar la taalibe la ku mën a nekk ci nekk ci dëkku sëñ Tuubaa bi la daal. Hmm. ñu ngi koy ñaanal bu baax. di hmm. nuyu waa garage ba yépp nag. Hmm. wax dëgg yàlla euh, sëñ Ndam. man moom yàlla dafa ma suturaal. ci ñi ndax war may wax rek. mbir mi dañ ko tënk ci tënkin woo xamante ni. tey billaahi wallaahi bu ma wàccoon bu liggéey. lu laal suuf ndax dañ ci am pas-pas am ci ngëm-ngëm. du sama xereñ. Hmm. xaw ma dara ci transport xam bu baax a baax kay xaw ma dara ci transport. waaye nag yàlla dogal na. Hmm. damay consulté wu ci ñoom. Hmm, man lépp lu may def lu ne. dama koy teg ci taabal ci yow nit koy yeewoo ndax euh, njariñ li rek laa moo moo ma intéressé. man du lu waa résil waaw waaw waaw. boo gisee euh, bi bi sama ànd ak Pape Seck. ñoom la du man ñoo toog consulté wu xalaat xalaat xalaat xalaat bu yàgg ñu ni ah Pape Seck de mun nañu ànd ak moom liggéey. noonu ñu ko waxee itam noonu la ñu bëgg a noonu lañu defe pour ànd ak Pape Ndong liggéey ngir ñun ñëpp secteur bi ñu doon benn loolu rek mooy suñu intérêt man de wóor na ma wóor yàlla ni lii di soppi ko mais dama bëgg nag ñun ñépp ñu bokk nekk ci biir mel na doon nañ ci dara te fekk duñ ci dara. asalaamaaleykum wa rahmatulah waaw sëñ daam maa ngi jégalu dafa mel dafa daggoon de. waaw sëñ Modou yaa del si. xam naa bi. taw bi la. waaye dama am nu mu bëggoon wax rek far mu dagg. waaw bisimilah si bi union xam naa li ko président waxee maire moo ci def comme que fi war a jaar jëpp jaar nañ si. Mm-hmm. waaw. il faut union bi am njiit. Mm-hmm. li ci li ci xew sax xëy na yéen a ma ko gën a xam. waaw. waaye ñi bëgg a ànd ànd na di liggéey. de ñun ñun mooy président président Sall. waaw. ñun xa ñun xamuñ ko de. ah ok yow naa xam. déedéet xamul parce que xoolal xam xam nga. union hmm? moom li maanaam li li ko tee ànd moom ñetti président yi. waaw. ñetti président waaye ñaari ànd nañ. ah. ñaar ñëpp mboo ëpp doole. ah. ànd nañ. li ñoom ñoo ëpp doole. ñoo ñoo ëpp doole si kuut. ah baax na. ñaar ñan la. parce que parce que li li li li firnde bi. ci ci ci rajo Téléguène euh, sëñ Modou leeral leeral li ñu déglu ñaar ñi ànd ñan la. ñaar ñaar ñi ànd nañ. Hmm. aussi autorités yi nga xam ne ñoom ŋànk dëkk bi. yor ñëw bi ne tamit nit ñi. ak ki ki ki maanaam ñetti président bi la Pape Seck. waaw Pam Ndong Matar Diaw. waaw sek Seck ak Matar Diaw ànd nañ. Pape Ndong ak Matar Diop boobu du du toogaayam boobu tey jii président Pastef lépp lu mu dugg. Uh-huh. bu ne ko lii laa bëgg du ci teg kàddu te ñun mm-hmm. ñii ñun ñii mu ànd ñun. Mm-hmm. Matar Diop bu xëyoon na leen def def leen lii. Mm-hmm. duñ ci werante moom. dëgg la te intérêt tax moo ñu tax a jóg. ay ndaw lañ. dëgg la bu njëkk bu njëkk daam ñu jiitu woon ñu jiitu woon taxi di ay mag waaw ñu noonu nit ñi defut amul ci kaw suuf dañoo yeewu nag yow daa jot. dëgg la te jabar taxe ñu tax a jóg. Hmm. ñun ay lobby taxu ñoo jóg. gis nga Pape Seck ak Matar Diop mii ku leen soog tax si kanam. Hmm. dëgg la wallaay asim du ma leen jey hmm. loolu doo nga leen ñor ñun ciy sonn guddi ki bëgg ki naka àndal na feeg mooy ki ki a dem. nañu meer taxaw jàppale ñu te union bi ñu tegu ko. bu dee élection ñu nekk élection bu dee day fal. ñu ñu tànn kenn ñu ànd liggéey. kon daal soxla ngeen élection yéen. ñeme nañ ñun fu ñu war a d' accord nañ. ah d' accord bisimilah loolu de moom mooy topp. waaw dëgg la ngeen seen bopp de. amul problème. <laughs> xam naa ne lañ sëñ bi waxoon ku ne leen dox. Hmm. te ni si si campagne bi. lañ dem élection te ñooy gën di soob yàlla te danañ gën di soob yàlla man ci loolu laa dugg. si campagne bi métti ngeen ne. amul problème. Ah, baax na dégg nañ dégg bu baax nag di rafetlu émission bi. jërëjëf sëñ Modou. waaw ah, di wax ñaanal seen rajo ci appel bi am na solo trop di kenn koo xamante ni. ku ñàkk caaxaan maandu te li ma gën a neex ci moom nag lu jafe ci chauffeur taxi moom mu gis dafa doon nit koo am diine la. nit ku am diine la loolu ma identifié naa ko ci moom. parce que man toujours loolu bokk na ci li nga xamante ni bokk na ci samay waxtaan xam naa ko mu ne sëñ àll bi nga xamante ne ñoo bokk groupe bu whatsapp yi sax xam naa ne moom mën na cee seetu lu bari bari ndax comme que ci ngay xëy guddeeg bëccëg ci ngay xëy di jugont da boole ak li nga xam ne mënut a ñàkk ci dund gi ndax lu moo tax suñu borom indi ñu fi kon te loolu dañ koo xàmmee ci moom bu baax a baax sëñ Matar ñu doon laaj ndax sa ànd ak Pape Seck gis nga ci sa bopp wala gis nga ci wala gisoo ci sa bopp ak lii ngeen rombagoon am nga ci looy réccu wala déet sa ànd ak Pape ñaari fédération yooyu waaw sëñ daam euh, sant nañ bu baax waaye loolu ngay laaj noonu moom. Mhm. wax dëgg yàlla mhm. day question boo xamante ni mhm. day doy waar lool wax dëgg yàlla. ndax euh, man. awma googu ñàkk fayda ñi ma àndal amuñu googu ñàkk fayda. Ah. waaw man euh, amul kenn koo xamante ni ci kaw suuf. mun naa ne dinaa ne ne yàlla yàlla nangam wala nangam te dëgg ci man. bi ñuy ànd itam. li ma ko waxoon mooy jant boo xamante ni maanaam gis naa wala ma ma ma ma ma ma man du ma dégg mhm. damay gis mhm. man lépp lu ne ñi ma àndal li ma ciy wax mhm. mooy Ali mi loo ma munoon wax ci moom man dama koy gérer naa gisal sama bët Pape Seck dañuy ànd ngir secteuru taxi mu yor mbooloom ma yor sama mbooloo ñu boole di ànd di di doxal jant bu ma demoon ba gisuma man bala man man maa koy ñi ma àndal may njëkk ba man. dëgg la am nañu fulla soo ko xaw na foo jógee. Hmm. waaw hmm. parce que war may wax rek fi ma nekkoon la ma fa jëlee woon mooy ñàkk a dox ndax am nañu un an neuf mois hmm. woote wuñu réunion kenn xamul lu xew. ñu xëy xëy woote. bi ñu toogee ñu def seen bilan ba di ñu rob ba di ñu topp bor. Ah loolu moo ñu tax a bàyyi lañ fa gisoon nekkul woon lu ñu doy wax dëgg yàlla ka yàlla dimbali ñu bi ñu bàyyee ak léegi itam. Mm-hmm. ñi ma parce que 45 lañu wax ni moom la ñu woon. Mm-hmm. garas. barki démb 45 gënoon waaw. est-ce que 45 gënoon loolu si matoon ngeen 45. loolu sànq yaa moom. 45 mm-hmm. garas. parce que mairie lañ toog. du la ko nëbu yow mii sëñ daam ma nga fa woon. Mm, mm, mm. Pape Seck jóg di wax ci turu taxe. nga yàqu ko yàqu ko. jóg ni ko tey dama bëgg nga leeral ma. ñan nga jiite ci taxe. parce que munu ñu nekk cinq garage jiital PAM ndog yow nga taxaw suñu waxee nga di maa jiite sa force ñan nga jiite. keroo la maire ni Pape Ndong yow loolu nan la mën a amee te xaw ma la. xaw la fekkee ko ko. jataay ba keroog meer da koo tas ne il faut ngeen waxtaan. ñu jóge ca di ko topp chaque jour di ko topp di ko soññ di ko topp di ko soññ chaque jour dem ba gisatuñ suñu bopp ñu koy taxaw kon jàpp naa ni. ndegam loola laa mën a ba asama koo xamante ni. <laughs> dafa yor mbooloo ma sama mbooloo nga xamante ni tey bu ñu taxawoon kenn ku ne demit du tee dañuy mën a liggéey ndax nag ma xamal la man awma pas-pasu topp ci kenn ngir intérêt. pas-pas bi ma am mooy dama gëm ni taxi mii man damay bokk ci ñi koy defar maak sama mbooloo man pas-pas boobu la am man bu ñu tasoon fédération yëpp itam man sama bos day dox léegi bi am benn question bu la bëgg laaj xam nga jamono ji jam jamono projet la nekk waaw ñun tey jii bu ñu la waxoon dem na élection hmm. projet ngeen ngeen mën a jaay taximaan yi ban ban topp leen xam fi tollu yéen amul ngeen benn projet woon moom fédération yi. waaw amul benn projet. waaw loolu dëgg la moom. Hmm. mais yow tey yow yow imagine tey jii bu ñu defoon yaay candidat fédération bi. Hmm. nga war a jaay projet bi. na leen man tey jii bu ngeen fa doon gis naa ak lii ak lii ak lii ak lii neexuma ci taxi bi ak lii ak lii moom moom moom moo mën a xarit taxi bi bëgg naa su faloo danaa leen defal lii ba ban gisum bopp ci ci dëkk bi baa xam safar gisum seen seen bopp dëkk bi. man day safar xamul leen def. projet bi ma gëm wala wala mu mosoo acheté. projet bi ma gëm. Hmm. mooy. lii ñu dugg muy réglementé taxi. Mhm. bu ñu ko defee. avant tout ba pare. Mhm. fexe ba garage yi. ñu réglementé leen. lu la ñuy mooy fi war a am garage. am garage am garage. Mhm. man du ma raayal kenn gannaawam. ak la fi wërte am garage bañ koo am. loolu nag maa ngi ciy appelé président Pape Seck. na ci bàyyi xel. gis naa beneen beneen beneen beneen projet mooy. waaw ah. war na war na ñoo dépassé. di di yalwaan ab sëfoor fekkee ne dana sëfoor moom léppam solidarité la te chaque jour nga dégg sa sëfoor bi yalwaan social social man de ci fi ma fi ma toll nii dafa mel na sama réunion bu mujj bi ci lépp ci loolu lañ ko def social waaw parce que am naa ci daal ay nit ñu xam ñoo xamante ni président Pape Seck ku ci mel na sëñ Xaadim maa ngi koy ziyaare mm-hmm. sëñ Xaadim bu tookóor ba maa ngi koy ziyaare bu baax a baax mbuub tóokóor hmm. ba waaw sëñ Ousmane ah, Talla itam hmm. ak mbaay mbay Dieng maa ngi leen di ziara bu baax a baax hmm. mel na na loolu def nañ ci émission dem ci waxtaan nga xamante ni fas yéene nañu doonatul nekk chauffeur bi day am problème ñi di koy waanal wala ñu di ko mbaa jàllal déedéet social bi chauffeur bu ci bu bu ne chaque fin de mois da nga dugal 1000 francs léegi ne dama damaa jàpp ne dama maanaam social bi si kuréel googu rek la yam wala day day day laawaale suur bi. ah fi mu doon fi fi mu doon pour l'instant nii nii moom. Hmm. sama kuréel. waaw ah. ci laa ko yamaleegul. mu daanu la ndax union bi doxagut. waaw moom mooy du daanu. waaw waaw maanaam da da ni ñuy def assurance rek. waaw ko si ko yàqu ñu defaraat. waaw waaw ci lu ci lu ngeen foofu lañ tolloogul. parce que nag moo wax la fii lu ma fiy tënk lu ne. Hmm. tënkalu ma ko union bi. Hmm. non en tant que président. man Matar Diaw waaw kay ak sama ak ak sama fédération waaye ñu parfois waaw waaw léegi nag léegi nag par parfois dañ lay jël en tant yow nga mën a jiite union ndax tey jii bu doon dox hmm. boo boo président da ngay président wala nekk secrétaire wala hmm. wala di dégg ci bureau bi ngay bokk ci hmm. bureau ñu ñu fomp leen gis ay nit ñi man man man sama jëw bopp tey te loolu ma mën naa nekk ci ni ma la ko expliqué bu fekkoon ne tey tey demoon nañ ba ñu ni ma tey ci ni nga waxee yow yaa jiite <laughs> ah. tey tey bu ñu ma ne woon yow yaa jiite union bi ci ah. exemple ni nga waxee nii ah. ah dañuy tëgg ay projet xanaa xamoo fi mu toll nii xanaa xamoo fi ngeen war a tëgg projet fi mu toll nii hmm. dama lay wax rek hmm. ci projet yi fi mu toll nii wóor na yàlla bu buñ ko amoon hmm. réglementé chauffeur si réglementé li ngeen wax nii. waaw xaaral ma wax la rek mënul am. dina am dina am. union am na. dina am dina am parce que li tax union am na. union moo nekk kàddu. waaw kooku moo amagut. Hmm. mais kooku bu amoon dinañ tëgg projet. Hmm. xanaa xam mooy Aly Mangan hmm. fi mu toll nii tembe tembe tembe li fi nekk ci ay garage tey bu ñu fexewoon ba benn garage bu ne chaque weer mu dugal cinq mille francs ñun léegi ñu am business boo xamante ni banque bu ñu ko def ñu lebal ñu xaalis mu garante ñu. te Ali ñun dañu am ay réalité ñun képp ku ñu ku ñu bëgg a dimbali. déggal ñun ku ñu bëgg a dimbali. doo ñu indil ay ay ay ay ay ay taxes. ñun li ñu mën a dimbali. mooy banque buy leb la xaalis. ñu jënd. parce que lan taxaw rek dama expliqué. parce que fi mu doon nii banque BNDB tey bu ñu bu ñu bu ñu bu fa defoon xaalis di ko lebal chauffeur si bu boobaal la chauffeur si jariñu waaye tey bu ñu andi woon fii oto boo xam ne dañ dañ koy jaay huit millions. di jaay di laaj di laaj. question ah, deux millions wala un million. millions. chauffeur chauffeur du ko jënd. mais wóor na ma wóor yàlla ne chauffeur si bu ñu leen waxoon ni dañ leen di lebal question cinq cent mille. salaamaaleykum. salaamaaleykum. salaamaaleykum. Ndam Lo. waaw Aïdara. Ah, Moussa Moussa. waaw ah, Moussa ñu ngi ziar. maa ngi lay ziar bu baax. président yokkal sa kàddu yokkal sa la de. allo. allo ñu ngi leen a ziar bu baax a baax rajo bi. am na suñu borom ndaw wax. waaye ñu ñu ngi si jàmm bu ñu lay ziar bu baax a baax. waaw macha allah émission bi am na solo. Hmm. waaw présidence. yow moom sama woote dama ci sawar. Ah. parce que fi yaa ngi fekk ñu ngi toll ci diggante président union bi. Ah. waaw président union bi. te boo xool ñetti hmm. président fédération ñoo fi nekk. Hmm. li nag lan moo leen teree ànd moo ñu moo ñu ump daal ci loolu lañ nekk parce que nag taal taal bu tëyoo taal dañ ko walee boor bu ne. Ah. waaw loolu daal moo ñu xaw a jaaxal te en tant que le vice président ñu yaakaar war nga ci mën a am ay solution waaw ñu ngi jaajëfal président Makhtar dafa dalal leen ku bëgg transport rawatina taxi. Mhm. ndax toujours ci loolu rek lay wax moom saa bu ngeen déggante rek ci lu ngeen def ba taxi bi baax rek lan lay wax. Mhm. defe naa ne kooku ñun amuñu fayam rawat na waa fédération ànd mhm. ngi koy jaajëfal bu baax a baax a waaw président damaa damaa yaakaar ne. waaw. Euh, comme ni wax léegi taal bi dina tàkk dina leen koy ëppee. waaw man toujours moo xam ne nañ bokk ci ñi nga xam ne ñoo war defar tax waaw léegi comme comme téléphone day am sax ta ñàkk mhm. ñoom bu dee mënuñoo dem nañ ñu ar yoon ñun ñu jéem a organiser taxi bi man toujours loolu laay mhm. man sama jëm bopp jàpp naa ne taxi bi ku ma ko dénkoon ma organiser ko mhm. rawatina ku mel ni président Matar Dia wala président Pape wala président Pam Ndong dëgg kon problème mu njiit amul solo parce que jiite jiite toujours moo wax ne tekkiwul ne yow rek yaa yaa war a doxal. Hmm. parce que bureau la bureau lay doon. Ah, bureau ko tëggee lay doon bureau bi. mais mais Moussa bureau bi bureau bi bureau bi bu amoon fu mu jaar dana am ko moom mooy dogal ni lii lañuy ñuy def wala leneen bi parce que nekk rek dañ ciy bokk waxtaan ñun ñëpp. Hmm, kon defe naa loolu ak jubóo war naa am seen diggante. kon hmm. loolu ak jubóo war naa am suñu diggante. Ah. kon nit du dara. dëgg la dañuy sóoraale nguur bu dul jeex amul képp ko jiitee da nga jeexal ba bu ba bu liggéey gars yi dañ lay puus teg mais ci leneen. Mhm. kon njiit gi kon problème mu njiit problème mu njiit rek muy tardé ñun ñun waa taxi Touba mu njiit rek. waaw sëñ Moussa yow fan nga yaakaar fa la rëq-rëq bi nekkee pour ñoom ñett kenn jiite. waaw waaw mooy mooy mooy li nga wax léegi tey comme comme ñoom ñett ñoo fi nekk. kenn ku ne di gengante man maay jiite man maa di ñoo fi nekk mais maire na jël ay responsabilité dem yóbbu ñu élection comme li sëñ Ben waxoon. dëgg la. wala wala wala maire maire ñu def constat yi maire ne diw booy jiitu. Mm-hmm. en tout cas ñun waa fédération parce que en tout cas mm-hmm. amuñu problème ku jiite ñun lañ fexe tax mi na dox ñun loolu loolu moo ñu intéressé. dëgg la niveau bii tax mi nekk nañ te fi jëlee loolu loolu rek muy ñëw. Mm-hmm. jërëjëf sëñ Moussa jërëjëf sëñ Moussa Pouy waaw am na solo solo contribution euh, mooy sama vice président. Mm-hmm. Euh, di ku jàmbaare. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. Euh, amul benn caaxaan. Mm-hmm. waaw gëm pës-pësam ak ngëm-ngëmam rek lay doxee ci lu mu mën doon. à chaque fois dafa may wax ni moom président bul jàpp mukk ni defal gëm-gëm ci yow ni yaay defar ta tax chaque jour lool la may wax saa su ma demee bu bëgg a taayal rek daf ma naan déedéet avancé rek lépp dina baax waaw ànd bi itam noonu mu ko mu ko daanale noonu la ko ñore bëgg ko ndax euh, lan lay bañ mooy ëllëg si ñu toog ba dara daal suñu kaw bu boobaa dañuy perte rek mu mel na ñu ngi toll woon ci man li ma gëm ni moom moom ñu mën a dimbali parce que man jàpp naa ne bu ñu amoon comme ni ko maire waxee woon nga xamante ne daf ñuy garanteel ci banque mu lebal ñu ale fii boo yi fi nekk du ay iranien wala ay oto ay non non non fii oto bi ngay jël dix millions wala huit millions man wóor na wóor ne xale yi ma gis fii koo ci jox trois million quatre millions mu jënd quatre cent six trois cent six trois cent sept parce que mooy nature dëkk bi mooy confort dëkk bi. nga ne ko weer wu dee cent cinquante mille bala cent quarante mille ñaata mois la koy fay ñëpp dañu ciy réussir mais boo indi oto boo xamante ne da ko indi ni oto bi huit millions cinq cent la caution trois millions ñëw oto caution même bu dee deux millions hmm. chauffeur bi du la ko jox mais ki koy jël chauffeur bi lay ñëwaat di ratt rek hmm. Hmm. ndax chauffeur a koy dawal tey bu ñu toogoon di ma laaj ci ci ci secteur bi loolu laay wax man. solution boobu laay wax. bu ñu ma ci fekk see xay bu ñu fekk siwul ma am yéene man ñi ma àndal li ñu nar mooy fexe ba am fond boo xam ne daañu ko dugal ci banque. ñun loolu la ñu nar ñun. loolu loolu seen projet la bokk. suñ projet la ñun. yow sa projet la waaw. seen projet la. sama projet la su ma maag ñi ma àndal. Ah, yow sa sa sa kii bi ñaata garage fi mu doon ne dama am naa vingt deux moom. vingt waaw. Ah, am naa 22 moom fi mu toll nii pour l'instant waaw parce que mm, euh, le 10 bii rek mm-hmm. maa ngi woon marché bu bees. Samb. Mm-hmm. seen GIE am na kii am na kii am na kii. waaw comme yi gars li nit ñi am am naa ko. waaw waaw waaw yëpp am naa ko. Ah, parce que loolu dañ ko doon wax. Mm-hmm. ba yaakaar naa bi ñu teewee ci kanamu sëñ Dan fekkuma fa maa ngi woon Kaolack. li ma lay xamal ni ñun gis nga woote yooyu ngay wax noonu bi sëñ Dan di woote. amul bu ma fekk te parce demoon Kaolack. mais sama vice président moo présenté wu keroog bi ma ñëwee jàkkaarloog sëñ Dan mu ne ay ah, yaay Maxtaar kon nga xam ne mooy li ma la wax ñun ku ku ku mu ci doon rek tey boo ko jamee rek mu wax la li ñuy dund. Hmm. maanaam seen bureau bi tëgg ngi ko tëggin boo xam ne. waaw ku dem rek kenn mën na la remplacer. ko parce que man damaa taayeelut damay lay jël téléphone dama lay envoyer vocal li nga war a doon da nga koy doon ñun saa suñu toogee réunion. secrétaire trésorier vice président ñëpp a ngeeg seen carnet dërëm boo fa dugal sa russi dañ la koy jox sama kase laa cay dóor amul benn dërëm booy jëlee ci garage parce que dañoo bëgg yow saa soo delloo sa garage bis booy régler russi yi ngay génnee teg sama bàkk mooy li yi di wax jubal. jub ak jubal waaw intervention lépp la def intervention ba mu des yàmbaa sàcc kooku duñ ci dox. président bu bokk ci sama fédération nag bis boo lekkee xaalisu garage ba fédération bi ak sa garage ñooy ànd ba dugal la kaso. wala nga fay wala ci sentiment. parce que gëm naa ni. mi ngi wax waaw waaw maa ngi wax wax ju rëy. Mhm. naa ni maanaam ale réew mi àgg na foo xamante ni kenn waratul man di dunde nit ñi di leen nax. Mhm. ale nag mën naa ko war xam nga ni ma mel nii rek. ak sama wax ju bëri moom ma war la waaye war benn koy def nit ndax mënutul am. chauffeur si danoo danoo danoo xaw a mel na xaw a découragé. waaw daañu découragé parce que li fi. même carte yi sax am am na ñoo xam ba tey ba tey ba tey. Moussa dafa dafa wax léegi ne dafa am ñu fi nekkoon ay mag yu fi nekkoon. déedéet déedéet du ay mag déedéet bu ñu wax am ñu fi nekkoon ñooñu li ñu waroon def def nañ ko man ñaañu ma leen. léegi def déedéet taxaw rek sëñ bi. man loolu dama man projet lañ fi teg. bi. man damay bañ ay projet ngi fi. ci fi Touba gi. waaw. ban la. am na fi taxi laa wax non pro moom xëy na yàlla amul. yàlla waaw fi toll nii nekk ci transport ci. mais mais loolu dañ ci door agsi rek. waaw mais ñoom fañ nekkoon di liggéey la ñu mënoon ñoo ko doon def carrément man moom maa maagaan ma xamal. man li ma gëm mooy man du ma tudd mel man man li ma gëm mooy. ñi fi newoon liggéeyu. man garage. déedéet garage ñaari bu déglu wax la rek. waaw garage ñaari pono. Hmm. ñoom dañ daan daggiru si di am adra di ko verser garage mag mais ku ci mos am problème. lu mu leen mën a por déedéet waaw waaw kon ñoom la rek lu mu leen mën a porté portel na leen. léegi est-ce que xaalis loolu la ñu doon dajale ñoom am na loolu yëpp. ku ca mos a waaw aaral wax la. la wax ñun pour def ay fédération. mais mais adduna mooy dox rek. Pambay moo yorul lépp. mais mais lañ ca waroon def ña ngi ko ca doon def fii nañu waxante dëgg. mais lan moo président Idika. moo lan moo dama lay wax rek. dama lay wax rek. ñi fa doon dugal seen xaalis. ah dan lay wax. non bu non non bu dan ba moom. bu dan laa wax. ok ah, waaye nag bu mu wax mag. xam nga man lan laay bañ. noo mag mooy mooy mooy. mooy ku la jiitu dara. même bu ñu ah, wàllu waaye ñu ñu jiitu. waaw dañoo liggéey car macha allah. muy kan fi nekk rek sëkk transport bi koo ci tudd rek ñëpp a liggéey parce que bu ñu waxantee dëgg fii chauffeur boo fi gis mu nekk Touba amee la njukkal wala ñaan wala ngërëm Idika. waaw Idika am man defal na ma intervention. waaw kon kon kay de mais nag. mais nag booba yàlla def na xàmmee ko mu ma ko mais léegi ah, ma ma. waaw mooy sa ma deful ma intervention pour joxel ma xaalis la joxel xaalis mais ñu ñu jàpp na mu ko ah. fekkoon na mu jiitu fa. waaw fekkoon mu gis ne jiitu joote. waaw bu dee bàyyi xaadim la projet. yi mu fi mën a indi indi na ko fi mi ngi daw muy am na fi. mais tata doo doo doo doo benn semaine bu am na ci. de mais mais jamono moo toll woon foofa. waaw léegi ba tey li ñëw ay muus. ban a semaine jàpp mais fu jamono la mais ñun ñun ñun loolu noonu xëy na ñoom seen seen liggéey la woon ah liggéey ko. ñun tamit ñun dara mais bu ñu leen saboté ñun nañ réussir dara. moo tax ma ne la eh, dañoo war a réussir dara. buntu boo xamante ni a dara ndax ñi la ko sëñ euh, aale di laajee. waaw noonu laa ko bëggee. Mhm. mais dama fee wax loo xamante ni aussi. Mhm. dafa jara suñ lañu bu baax. Mhm. muy ci cadre taxi parce que taxi bi. ok fii ci Touba dëkk la. mais dëkk bu nag ak ay réalité Touba gisuma fi liggéey ak ay tali yoo xamante mën naa gérer taxi bi sept millions huit millions. man dama ci ak cent pour cent en attendant. ci nan. aana ne na tata yi benn chauffeur ci mhm. loolu duñ ko weddi parce que mhm. man gisuma ko mhm. parce que li ko waral lañ doon laaj chauffeur bu ko amoon da nga ciy jënd oto instant booba bu méngoo la nga bu dee weer blanc yi comme ni mu ko waxee ni ngi nuyu au passage euh, président Mounou Mbaye ak président Pape Mbaye weer blanc yi bi ñu ñëwee li ñuy laaj ci constitution goneeg Touba goo ko laaj daf naa balay caag ma di ñuy benn quatre cent cinq wala ma dem jënd ci Ah. kon léegi man damay d'accord ak yow. Hmm. parce que taxe bi nga xamante ni indi nañ ko fi. Hmm. di laaj borom caution deux millions cinq cent. Hmm. kooku xam nga ne bu amoon deux millions cinq cent oto boo xam koy fekk mu yor. Ah. waaye de googu du ko nangu. kon man li ma xalaatoon. ñu jéem a comme que am nañ ay fédération. fédération yi def nañ ba tënku doonaat union. te ci dégg naa ci waxi maire ñu ne union bi aussi danañ ci tànn douze ou quinze personnes yoo xam ne membre des unions. nga ñoom ñooy dox diggante entre fédération yi ak taximan yi ak. commission de pilotage bi. waaw bu boobaa. man li nga xam ne moom laa xalaatoon. Mm-hmm. ñu fexe comme que yéen ñëpp am ngeen i këyit seen garage sax am nañu këyit waxuma laa seen fédération yi. Mm-hmm. ñu dem a dem ci benn banque. laaj ko nu ñu bëgg liggéey ak ñoom parce que. yi noonu ñu liggéey ak yi noonu plombier yi noonu et cetera et cetera. mooy li ma la wax mais si mën nañoo def ki lay jaay oto du xam oto bi nga xamante ne moo ànd ak environnement bi nekk sa dëkk parce que Touba dëkk la boo xam ne dafa tàng dëkk la buy taa da ngay dugg ci ndox da ngay yebi bagage kooku oto boo xam ne oto courant la wala oto boo xam ne du dugg ci ndox wala oto boo xam ne oto gaz la wala oto boo xamante ne yow sa courant kër ma doyut nga bëgg oto booy war muy doon oto courant aussi loolu tamit dafa jar bàyyi xel parce que bu ñu la ko xasee wékk yow yaa ci des man li nga xam ne laa d'accord yow mi nga xam ne nit oto nga jàng ko muy sa métier. aadama mm-hmm. ngaan mi tey bu buñ ko joxoon tey projet cinq cent millions na ko dugal ay taxes dëkk bi dana ci dana fi dugal taxes yoo xam ne taxes yoo xam ne dañu mën a continuer di fi taxes. Mhm. fi ne nii exemple rek laa la jox boo demee Kaolack amoon na ay taxes bleues yu fi noonu. waaw waa ji moo fi waaw mhm. CCB moo fi noonu. Mhm. ana war war na bu ca des. benn. te cinq cent cinq yañ fa fekkoon ña nga ko ba léegi. kon xam nga mbir mi. li ma sama benn patron doon wax benn paa bu ñu ma doon jàngal métier nga ne bi ma amee poids lourd bay jàng transport. Mhm. moo ma doon jàngal oto bu mag. Mhm. daf na ma sa oto bu ko jox sa waay jox ko waayam. Mhm. boo ko joxee waayam da am waaye am am oto. waaye boo ko joxee sa waay nag te mënul oto. da xañ oto xañ la waay. kon man li ma wax noonu moom laa d'accord. seeni projet yéen. xam naa sax man du ma leen jàngal nu ñuy campagne waaye seeni projet yéen. bokk na ci ngeen dem def seeni demande ci banque yi bu boobaa. bu ngeen demee ba ku mu koy yàlla teg ci loxo man d'accord naa ci ak moom. Mm-hmm. man laajuma. mu def demande ci banque yi laaj xaalis dugal caution ñu jox ko tey 8 millions man nga ci am ñaari taxes yu baax. loolu la la par rapport ñu la jox benn. waaw fii nii dañoo am suñu réalité ndax dañ fay nekk suñu nawle. waaw muy lu mel ne sareet yi. Mm-hmm. et cetera ak ñeneen ak ñeneen ñu bokk tëli war ko seq di ànd ànd bu rafet. Mm-hmm. booy jën da nga jënd oto boo xam ne oto bu dëgër bu mën a composé ak la route. la waaw. bu tooyee mu mën a daw bu naajee mu mën a daw bu seddee mu mën a daw parce que fii nii li fi xëy di dugg ci oto transport en commun di génn dem ak ñëw ni oto essence ba fa nekk wala oto ni oto bi mën na fii liggéey nangam boo xool urbain moo fi nekk sa garage su nii tey ku jëloon oto gaz di fa dawal fi nii pour nga dem day day ah ndax fi nii boo dayee deux kilomètres jeexal tëli bi wala un kilomètre cinq cent jeexal tëli lu def yëpp yaa ngi koy daw ci suuf ah. kooku daal yaakaar naa ne man ci sama xalaat man daal ñu xool oto boo xam ne mooy gën a méngoo ak dëkk bi gën a méngoo ak sunu jamono ndax xam sa bopp aussi mhm. ci jaamu yàlla bokk loolu président euh, Matar waaw man daal hmm. ci foofu nga nekk rek foofu foofu la foofu nga daane la fi laa fi laa nekk hmm. nañu jéem a àndandoo doon benn hmm. bañ euh, am xaj ak seen mbir mi ku ne xaj na ci yaatu na de yaatu na te jàpp naa ni mbooloom sufóor à chaque jour sax dama koy dama koy wax gars yi damay dégg ñu naan euh, syndicaliste ah diw diw diw mais ñun Touba dañu war a am suñu yëfi bopp <laughs> non man ay syndicat jë jëggaani non jëru ko ñun waru jëggaani dara jël non man tudduma kenn. mais ñun ñun ñi gën a siiwul Alassane Ndoye. mais loolu ñu jëgaan li ñu doon. Pape Seck sax ma de xaw ma xam man man nga damay gone. man damay gone boo ko gumba fenn man xam nga nit ñi xamaguñu ma. man secteur bi xamuñu ma. yow ban ban ban galas nga jiite. Oumou waaw. mooy garage bi nekk sa marché ba. waaw moo waaw ca marché ak koni bu dee bi ma jiite mais bu dee union bi nag moom. fédération bi na si garage bi bi nga xam ne moo jógee. sa jiite woon. waaw waaw waaw boobu non mooy jógee garage koni dem garage ancien garage. Mm-hmm. bi ma jiite am yi ñu ngi koy kaas. waaw waaw loolu. ruq bu ne garage ruq bu ne garage. wax naa la ko. Ah. maanaam loolu yëpp ñàkk a réglementé wu rek moo ko indi. Hmm. parce que euh, euh, bërki démb dafa am ñoo xamante ni dañoo nekk marché Ocass woo ma ne ma dañoo bëgg garage fii ñu nekk man euh, bu ma sañoon gars yi di wàcc terrain bi di wax ak doomu aadama nit nit am na lu muy lu lu muy dugg ñàkk ko leer suñ ma hmm. waxee baagal hmm. man leen ah waaw xaar leen comme rajo moo fa gën a jege ma woo ko ko président expliqué ko kii mu ne ma ñooñ de ñëpp ëpp ci man lañ bokk sax ñan ak ñan ñoo bokkul ci man te xam naa carte yi ñoo tax ñuy yëngu. man dem rek fipp la ñu doon. waaw ma ne ko amul problème bi ma leen woowaatee dañoo bokk toog waxtaan. bi ma waxtaanee ñoom ba expliquer leen Ibra Diop dafa wàññil daf leen a wàññil ay adraam ak regroupement. ñoom ñu ñëw. ñu ñëw moom mu jël coxor teg fa garage bi di benn. xam nga xam nga yow man man man moom wax dëgg yàlla yàlla damaa suturaal ci yéen tëgg ngeen ay ay projet bu ñu ñu joxoon xaalis nangam nangam mais fekk àndoon ànd amul loolu mënut tam xam nga yéen a ngi jox joxoñ maire mais maire li war a def lépp def na ko non dinañ ànd yaakaar nga loolu non dinañ ànd parce que mënuñoo te mbokk yi te bokkuñu dëkk bi nag non ale am lépp ale danañ ànd moom loolu mën na ñàkk ndax dèjà il faut ñu waxtaan man am am léegi ñu def beneen solution hmm. yéen ñett ngeen mënut am na jiital koo xam ne moom moom bokkul fenn. mu jiite taxi mi un an sax defar ko maanaam. de loolu alem tamit pour mu nekk dana loolu du yomb. du yomb lenn kay mooy man a ne parce que union des fédérations nga wax. waaw ku nekkul président fédération mënoo koo jiite. non lenn mën naa ne defar ko laaw. non donc lenn mën na ne. comme lii di am ci commune yi. bu maire bu fekkee maire amu ko ñu dafa délégation spéciale moom laa la maire genre délégué spécial la. mais même su ko mais loolu loolu yow kii wax na la ko léegi. waaw ah, ah, ah. comme na. kii waxu la léegi ni la dañuy defar benn kii waa commission de pilotage commission de pilotage bon mooy loolu. man waaw mooy mooy mooy ñàkk jubóo gi dama ne bu ñàkk jubóo amul. xam nga ñu xam ay projet yoo xam ne. li ko téye lépp mooy yéen seen seen seen ñàkk ànd. dëgg la maire na jël responsabilité. wut jël kenn même fekkee moom moo koy jël. mu ne kii mu kii mooy moom mooy président. xanaa xam union des fédérations. ne man. bu see toppal Pape Seck wala Pape Tali Pape Pape Ndong keneen keneen topp ji ñu léegi nag taxi maa ngi liggéey mais yéen ñett doog mënu ngeen a ŋànk transport taxi Touba demu ngeen dikku ngeen ku nekk xëcc ñi ñi ñi. déet man xëcc ma. non mais bokk nga ci ñi xëcc boo xëccul tamit am am am na koy. en tout cas fi mu doon nii teebe daal. man de maire ak ñi nga xamante ni ñooy ñooy kilifa yi lu ñu tegoon. Hmm. man duma ci am problème. en tout cas rek ndax man gëm naa ni. Mhm. man li may am bon bon diggante Pape ak Pape Ndong la. ah loolu moom xam nga ci dara yow tamit nag. <laughs> xam nga ci dara ci émission lañ ah, ne Baye Bada ci émission lañ ne man xaw man da nga ne amoo problème. déedéet amoo problème ndax man li ma gëm. mooy man yow ñu tànn laa ñu ñàkk tànn yow yow la intéressé mooy taxi mi dox. jeex na. man diggante Pape Seck ak Ndong. ah man de loolu laa gëm man. non bàyyi ma gëm mooy diggante Pape Cheikh la ak Pape Ndaw. déedéet man damaa gëm ni man taxe mi na dox rek ak ku mën a jiitu. mais bu bu jiite amul dox. bu bu jiite amul dox. ku jiit da nga dox wala ñu def la nee ah non ba dama ne bu jiitee amul du dox. ah ku jiite daal boo doxut. Hmm. fédération ànd taxawu taxi moom dana la teg ne dem dem dem liggéey. maanaam. mooy sa fédération. mooy sa maanaam tey jii bu ñu jiitaloon kenn. Hmm. ne kii mooy président union des fédérations. waaw bu doxul. damay dem liggéey damay dem liggéey. man gëm-gëm bi ma am du du du du fédération bu taxaw bu ñàkk taxaw dañuy liggéey ñun bu ñu nekkoon ñetti nit it ñetti nit ñooñu. daañu am accès ci tas liggéey seen seen kii bi am na xaalis fédération am na xaalis. ah yàlla baax na. ñi mel na yow laay dajal nga am yéene ci man. waaw ah, ah, ah, sëñ Matar. ma ci mënoon sàkku sëñ Matar. <laughs> sëñ Matar xaw ma yéen yéen a ngi xaw ma yéen yéen a ngi jéem a dox. xaw ma jéemu leen dox waaye mairie li ma gis ah. mairie moom mi ngi dox mi mais carte yi moom doxul waaw waaw waaw non ci benn côté ci moom ci muy développé xam nga loolu ta ba tey ci yéen la ndax ba yéen leen waroon takk taxawal na kon ànd deman takk eh, taxawal léegi fi ni man li ma xalaat foofu sëñ daam dama lay wax bisimilah commission la ñu tëgg mm-hmm. commission bi ñu ko tëggee mm-hmm. am ñu fa nekk ca bureau ba mm-hmm. may nuyu Sakria Fall. di ko ah, ah, ak ak Moustapha ak Moustapha Dieng. daaf. Moustapha Dieng Sakria Fall la ñu mm-hmm. mais lii ma lii ma lay wax ni mu sonn ci loolu nag mm-hmm. mais dox gi mm-hmm. yeex na trop yeex na mën na xam parce que carte yi ñoom niñ ma koy expliqué dafa compliqué li li a jaaxal mm. mooy maire ki ñu boole mu wut wutab xaalis mooy liggéey muy daaf pour ci lan maanaam moom ci li mu xam mooy wutab wutab xaalis waaw c'est que loolu loolu dëgg la waaye daaf gis nga carte yi leen dong la ci maire am yëpp nag waaw xaaral xaaral rek leen dong la ci maire am avantage mooy képp ku ko am di taxe da nga fay droit. non maire moom rek da ciy perte. waaw kay ça ça dafa am lu ñu ci xamul. maire moom da ci perte ndax bàyyiwoon taxe muy puccaxoo ah. du ko tee di jë jëf laaj xaalisam. du ko tee xam naa am na am na ñoo moom dagg droit du maire tax ñu dagg droit. alkaati bi alkaati bi tax ñu dagg droit. waaw léegi nag dafa am ñoo xamante ne dañ ma ciy laaj saa su ne ak may dégg ñu ci débat di ci wax. mais nañu xam ni man du man man du Pape Seck ñun ñoo imposer maire naan ko defal nangam. Hmm. te bu ma ko mënoon nit sama waa fédération sant lañ ciy def man bu fekkoon ne am naa capacité dem ne Abdoulaye Ka defal dara mu def ko. billaay ah, bu ma bu lan moo tax nekk da ngaa Abdoulaye Ka lu ko bàyyi. non xam naa déedéet c'est-à-dire déedéet dama lay expliquer. Hmm. li ko bàyyi fee hmm. du man kese man maay ñëw. di ko wax muy def. mbooloo lañu kuréel lañu. day moom bu fekkente ne lim ñu wax moom ndey ji seex la dafay bari ay ween yu muy nàmpale kere bi ñu mujjee réunion loolu la wax kon xaar leen ma déglu ma dinaa woote lijjanti mbir moom léegi man damay dégg chaque jur maire ne soixante-dix pour cent li jëm si mairie bi ci budget wala xaalis bi. si mm-hmm. transport lay lay jógee. ak commerce. waaw non transport transport kese waaw commerce. à part euh, maanaam transport mooy premier. xam nga 100 pour cent boo ci gis 30 pour cent mm-hmm. léegi boo jëlee 30 pour mm-hmm. a ci commerce a ngi ci. mais léegi transport moom lan la ci gisee moom lan nga gis loo xam ne mair bi. mairie Touba jël na ko rek muy mbaar wala muy douche publique wala muy robinet wala defal defal defal na ko transport. mais wax na ko gisaguma ko de mais wax na ko. wax na lan am na projet bu mu teg. moom wax na ne saa suñu àndee. pëccëxoo bi bu dañee pëccëxoo bi dañ. Hmm. ñu identifier garage yi. Hmm. même seen toilette yi ak seen mbaar yi. Hmm. ak même ña fay jaay. dañ leen réglementé. defar ko ba ku fa ñëw xam ne lii méngoo na ak dëkk bi. mais duñ ko def nag ci kaw pëccëxoo bi. ñun li ñuy ah. reynte li ma lay wax rek li gën a gàtt. mooy bi nga xamante ni yëkkati nañu ñu nekk ci corniche yëkkati bagage yëpp. moo di pourtant dañu dem ba reconnaître ni oto du gaare ci biir kër taxi mënut a nekk ci biir kër. taximaan yi dong lañ mayaatoon ñu mbaaraat ñëwaat seen i garage. maa ànd ak Pape ak sëñ bi ñu tëb kenn ku ne ñun la tegal fii. moo di pourtant li indi loolu mun na indi buñ la nee dañ la fiy defal duus war na war nga ko gëm kon mais nag day fekk pëcc xoo bi dañ. bu dañee ba pare. pëcc xoo bi lu lu lu koy dindi moom. mooy ànd gi ni li ñu xolal ma xamal la nag affaire taxe moom ñi ngi koy door a waxtaanee ci mairie moom. Hmm. comme nii nii ñu koy waxee nii moom. Hmm. nit ñi di ci dugal seen loxo. Hmm. mi ngi door a am moom. waaw ba tey euh, président Matar. seen euh, euh, pëccaxoo bi ñu ma la tuddee nga xam ne moom la ñu wax ne léegi. ànd amagut. man a jàpp naa ne yéen a ngi liggéey man sama jàpp-jàpp. ndax comme que lii am musta am. déedéet kon nag commencé tey sotti tey du yomb. déedéet déedéet est-ce que commission transport bi nga xam ne moo ne ci commune bi. Mhm. te bàyyi xaarim jiite ko. Mhm. commission transport bi est-ce que mi ngi def ay jéego pour lu leen lëkkale ngeen doon benn wala déet parce que damay gis yéen ñetti président yi ko ci nekk day wax jëmale na mu bëggee. Mhm. mais commission transport moom laa xamul moom wàccu taxawaayam. ban taxaw ndax mooy mooy seen kilifa ci ko tegee ci moo ko war a tëgg. en ah, président allé commission transport commission transport Euh, Baye Baye Xaalim Gueye. ak ah, ah, Pape Seck Baye Xaalim Gueye Pape Seck mooy le vice président. di mm. di commission des transports. Mm. mais war nañoo ñoom bu transport amee problème. Mm. ndax commune bi amul dara lu war a seq ak euh, euh, transport loo xamante ni jaari ko ci commission transport. parce que secteur yi ci dëkk bi lenn lu nekk da nga am sa commission bu nekk ci commune ba. commission transport. moo war bu nga xam ne ànd bu fekkee ànd mënut am. moom mu xool li indi ànd bi tey ñu xotta mbir mi sa gaayen da nga koy jox ki ka man da nga koy jox ki ka man ñu xool ki ka man ñu jox ko ko mu doxal ko. xam nga man. Hmm? Euh, ci foofu noonu moom li ma fiy tontu. Hmm? mais man sama xam-xam dafa yem ci eh, li ma fekkee rek. waaw parce que ñooñu ñëpp. maanaam doo gëstu yow. non déedéet ñooñu ci maanaam bi ñu leen di nommé ka fal. de nommé wax dëgg yàlla fekk. non Touba moom xam nga ni ñu nommé. Hmm. Touba ah, moom mais Touba moom xam nga ni ñu mais réalité boobu nag munoo ci dara. waaw non d'accord nañ sax. Ah. waaye moom maanaam question bi bi mu la wax. di déglu bu baax mu la wax. dégg naa ko. ban taxawaay la taxaw ci ko ci ci lii parce que lii liggéeyam la. transport lii moo tax ñu teg lii moo tax ñu teg ko fa moom. moom Baye Khadim. waaw ku ku mën a jiite rek moom ba ci Pape Seck. commission transport boobu parce que man mosuma sax chauffeur boo xam ne. am na gàllankoor. Mm-hmm. astafurlah yaakaar naa Pape Seck mas naa dégg mu ne am na benn chauffeur bu ñu dimbale ci wàllu social. pourtant fay am na am na caisse sociale pourtant chauffeur yaa ngi fay génn seen ñàkk di ko fa. c'est mais allez attention foofu. loolu tamit Pape Seck moo ko doxoon ci connaissance boo xam ak diggam ak maire. waaw mais jaaroo ko ci commission transport. commission transport euh, normalement. xam nga loolu itam dem mhm. maanaam booy xool man naa di. non liggéeyam des na. liggéey commission des transport ah. ci di ndax lii nii. pëcc xoob yi ba xarim gi hmm. waaw bu baax si. Ah. Hmm. am nañu ah, ay ay ay woo woowu leen yéen ñett waxtaan ca yox ceeg yéen. waaw waxtaan nañu. waaw ah, kon muy ah, kon kon si. kon waaw waaw merci waaw waaw xam naa baax a baax. même man ànd na waa bi ma taxawalee sama. fédération mhm. ñu bokk toog mu waxtaan ak man ba ba ba Mbàkke juróom. Mhm. ba bi mu agsi lu bëri. waaw si loolu waxtaan sax. yow yaa yaa Pape Seck lan lan moo tax mu mu xëyoon seen neex bu yàgg tey mu xaw mu commencé neex. Hmm? maanaam bu njëkk. Hmm. ci li ma jàpp si su ma kiiwul. Hmm. dafa mel ne ay genre ennemi ngeen woon. waaw non non dégg naa boo xam ne yow ñu ñu ko yàq ci nga bokk. waaw waaye. yow yaa taxaw jox ñu Pape Pape Seck. na ko jiite woo jiite woo taxi. waaw waaw. maanaam gannaaw gi. lo looloo tax nag. ci gannaaw gi lan lan moo lan moo changé. moo la lan moo changé. Hmm. wala fa fa nga demoon nga dem ba xam ne ñii doxul. fii fii fii fii. non non li li li changé mooy li ma la wax rek. Hmm. àdduna mooy dox rek. Hmm. am déet. bay Moussa da Baye Baye Moussa Thiam ak ak ak Gëmpam Ndong. Baye Moussa Thiam. nangul loolu àdduna. ku la neex ne da ngay am koo gëm gëmal ku yaa ngi nii gëm Pape Seck. Hmm. man gëmu Pape Seck. waaw waaw waaw gëm nga Pape Seck. la neex mu gëm ko. moom ñi mu yor moom Pape Ndong dañ ko gëm muy liggéey ak ñoom parce que tegal na leen lu leen bay. Hmm. man te yéen yéen am am ngeen xam-xam boo tey bu ne woon élection jàpp ngeen ne man ma mën ngeen a gagné Pape Ndong Pape baa baa xam nga ne euh, transport Touba. Hmm. ci maanaam kàngami la la la ngànk maanaam réunion bi boo fa demoon. secteur par secteur xam nga secteur par secteur la. xam nga xam nga man seen réunion bi ma demee yéen benn yéen laa fa gis. xoolal man dama wuy ma xaaral xaaral président des benn xaaral xaaral ma gisuma président des urbains. soo bokkul. gisuma seen xaadim man même gis naa ñu bokk seen fédération ñu ñu ñu ñu ñu fa dem. man d'accord naa lépp yow da nga maa déggul. man fi mu toll dama nekk ci loo xamante ni man awma ku may ku may ku may ku may. yow tey jii buñ buñ jiitaloon Pam Ndong sax nga nga ànd ci. nañ bañ ca àgg ca rek. déet <coughs> bu ñu jiitoon pam pam pam dong da nga ca ànd. bañ ca àgg jiit <laughs> jiitu dara dañ liggéey rek. kon daal yow résultat daal nga bëgg. ma résultat bi rek ma ñor. résultat gis nga ñooñu ngay wax man man muy du du kenn koo xamante ni nekk na ci secteur bi. te mag ma ku may sajj xef billaay ku ma ci gis comme nii ma lay waxee yow laay waxee ak moom. amu ci xaar ma yàlla. waaw damay jàpp ni rek. seen mission joxoon nañ ko man nii maa defagul dara. waaye nag bàyyi mataar bàyyi mataar foofu. comme nii nga wax ne moom nga bëggee taxi ni nga ne moom la la ñoree. Ah, waaw moom waroo ci am euh, lii comme ni nga ko waxee yaakaar naa képp koo xamante xam nañ ne mënu koo doxal nag. kooku yaakaar naa moom ba ba léegi waxuma ko ko mënut a doxal ñu doxal ko. loolu da du am. Mm, waaw très waaw du am très bien. <laughs> Mm, mm, taxi kenn mënatu koo jiite du dox. mënut a nekk. ñu bëri coow ngeen ji ci doom. waaw loolu moom yàlla moo ko moo moo moo ko def réew mi gis ko. ni meloon tension yi fi amoon tey anam. yàlla la rek. biñ demee ba. fal ba li ñu bëgg ba léegi coow lan bañ fa non non coow coow mënul ñàkk mais mais mais gënoon na fee métti. gënoon na fee métti noonu rek lay demee. man de wóor na ma wóor yàlla ne bis bu ñu faloon président ñun ñëpp ay ànd liggéey. amoo xalaat tamit maanaam euh, maire yi ñu xam nga li bañ mooy bu liggéey ku fi comme ni mu dem ba ni ni Sénégal bu joxoo ci wàllu politique. Mhm. ku mere président rek juróom wala ñett fipp fipp def def def seen fédération. pour fédération waaw comme. loolu expliqué mooy fédération ñu sécuriser ba. ba beneen fédération du mën a juddoo. waaw wala yeneen sax. ndax damay bañ ëllëg. ñeneen mer rek comme ni nga def nii. yow ba léegi déggoo. mer rek fippu. na ñeneen fippu. mais na képp ku mu a doon rek. na ko secteur bi ñor. ñu bañ kaa dundee. waaw ah, kay di ko dundee. di ko bu mu ko dundee na ko dundal. na ko dundal man fi mu doon nii fédération amoo problème fédération. amoo problème mu fédération amoo dëkk bi. yow amoo problème mu jiitee ñàkk jiite. déedéet. yow sa philosophie mooy na dox. na dox rek man même bu ma nekk bu bu tey tey bu ma nekkoon ci gannaay te muy dox rek man am naa fierté. waaw nag keroog nañoo ak nag mu ne moom bu doon bu doon mooy teg yow la fiy teg parce que nee yow xëccoo yow xëccoo woo daal. ndax ndax tey bu jekki jekkoon na la léegi yow Matar daal te jox naa la ko euh, euh, kii bi jox naa la union bi. am nga xam-xam waaw am jox naa la union bi. da nga ko xam waaye yaa ngi fi. sa morom a <laughs> bu la ko meer joxoon da ko jël. waaw yow. nañ liggéey rek. Mm-hmm. waaw liggéey rek bu yaa ngi fi. ma joxoon da ko jël wala doo ko jël. bu ma joxoon mais. union bi waaye yow nag yow nag lan lan mooy tax. Hmm? maanaam yow ñee bon ñoom ñooy xëcc waaye yow moom comme li nga wax. bu ma ko joxoon ñoo ñëpp dañuy liggéey. barke yaa Rasulullah semaine laa la may si nga jàpp na benn benn benn ko. comme ko day génn ci xel mi. <laughs> non du gaaw a génn ci xel bi nag. loolu dara. non ay booy ay. Pam Pam Ndong xam naa ko. waaw léegi euh, sëñ Matar. sëñ Matar yow sëñ Matar est-ce am nga yaa am nga yaakaar ci ne Pape Seck mën naa joxal doxal union bi wala déet li nga xam ci Pape Seck ndax am nga yaakaar ci ne Pape Seck man bu ñu ko joxoon union bi mën na koo doxal. du Pape mooy doxal bu boobaa. Hmm. non waaye il am ko ne ci bopp bi maam bu ñu ne ci bopp bi taxul wax. mi ngi dox kon Basirou Diomaye mi ngi. Hmm. ah jàpp naa ko de loolu laa yaakaar ne mi ngi doxal. Ah, kon kon mooy nga ne bu ñu jiitaloon Pape Seck kon. ne rafet nga njort ci ne war na kaa mën a doxal. waaw parce que lan la. Hmm. mooy du yow yaay yanu waa léegi loolu yëpp bu amee lu ci xëccoo wuti kon. amul benn intérêt. non loolu c'est-à-dire loolu loolu rànkiñe rek après lu lu jàll la comme li ngay wax nii sànq. Hmm. xam nga yaa ngi wax wax bu ma bu garaaw léegi <laughs> non Ali boo boo ma bëggee yëkkati daan ni hmm. booy Pape Ndong bu jóg rek. waaw non loolu dara. booy bi daa fël ak poussière bu bari de. loolu dara bu njëkk. sëñ Matar booy bi daa fël ak poussière bu bari na bu njëkk bu njëkk man ma man foo foo tuddee Pape Ndong ma ma avant Pape Ndong ma Matar ngay gis. waaw. loolu àdduna la. rocci wàll ponkalam yëpp yóbbaale. non loolu loolu. <laughs> boo boo jëlee. <laughs> Moussa Pouy ak sëñ Modou Sall. waaw Cheikh Fall ñaan. non loolu hmm? loolu yëpp mbir suñu la rek. ministre de l'intérieur dama dama ko soññ la rek. loolu <laughs> soññ la rek. soññ ab soññee la ci moom ah, am na. waaw parce que waxoon naa ko maire bi ñu toogee ma ne ko Pape. Hmm, hmm. dangay ngay nangu ni. dangaa njaboot. ba am ñenn ñu ci ñu ne sa biir kër ñu génn ber kër. ñu mat sëkk. mat sëkk ber seen kër. loolu kese la dégg na moom moom. moom mu ne. Hmm. bàyyi seen ak bàyyi moom mairie la ko yëgee bi mu jàkkaarloo la xam na yéen ba bàyyi ngeen. non da nga ne ndox bi du ngeen leen leen lettre démission waaye yow sëñ bi doon nañ bàyyi. Ah, mais kuréel googu xoolal kuréel ga bañ fay bàyyi boobu amul amul amul récépissé. ah yow bon yow xamoon nga bon li li nekkoon bon kiiwul te te mairie da nga da da nga taxawoon dëggal sa bopp. non cest à du may dëgg sa bopp. wala wala ba ba daal de si si si colonie waaw waaw parce que moom moo taxoon bokk. amuñoo ñaata un mois neuf. un an at ak lu tegal. Ah. ñuy dox. est-ce que jàpp nga ne lii ñëpp reconnaître ñu. yow est-ce man bon man damay jàpp ne yow eh, kii bu amee échec bon bon ci yow la. kat moom fédération kii bi union bi. bu hmm. amee échec ci yow la. ndax booba soo bàyyiwoon ñu xam ne kii li mu yor du dara. Pape Seck mooy affaire bi ñu jox ko Pape bon bon romb nañ fi. mais xaaj xaaj da nga ba xamul xamul. ah bon ni bon nangu erreur bi dañuy ci yow la bon. nangu la erreur bi ci yow la. déedéet man yow la. non ña déedéet. non déggoo ma de xam nga xam nga xam nga ne yow lii yoroo yoroo sax récépissé. non ah? non même na récépissé. ah waaw déedéet. non bàyyi yow réunion béyu ma egg. non du ma ko man sama. yow maanaam bataille de psychologie. yow yow yaa ngi wax nii mais kàddu ñu bëgg maa génnee mairie. sama gëm-gëm mooy loolu rek maanaam yow yow sa kii mooy li ma yor du ma dem mais kenn du dem. déedéet jàpp naa ne. déedéet dafay yow la parce que soo bàyyiwoon réunion ba jàll. ñu xam ne Pamdo mi yurub. non yurub waaye booba man sama gëm-gëm mooy wóor na ma ni la ma foogoon ba tax ma di ko def. mooy saa su bon li ma la wax dëgg sa sa sa saa suñu ko réussiree dañuy doxal mais comme dem nañu doxalut sëñ bi ñaari président lañ faral Sénégal doxul ñu wàcce du ña ñàkk dox bi ñoo xam ne dañoo jeexal. Ah, non dama lay waxee noonu rek. Macky Sall kii daa jeexal ñaari mandat la def. gaa yi ne ko ñe doo doo doo ko ñetteel. Ah, am na ñu wax ne doxal na am na ñu wax ne doxalut. waaw président Allé Allé. Ah? Allé Allé bu ñu fonto Allé am na li ñu naan hmm? wax jeeg doxu ko moom. président Matar li mu la wax leer ma gënoon ci loolu. li mu la wax leer nañ waaw. man sama doxin mooy. gis nga même fédération bii nga xam ni. man mosuma woon foog sax lu mel noonu. Hmm. toog nañu ay weer di daw ci gannaaw mais gis nga jour bi ko yàlla nammee Cheikh Fall ñaan moo ñu éviter añ ñu dem këram. Cheikh Fall ñaan. waaw. kon ah, xam naa xame naa xaw ma ko mais xame naa. ñu toog fa añ waxtaan. ah kon si gerte moom fa la mooy mooy mooy kii. mooy mooy garasam waaye këram lañ dem. kon si gerte man moom. mu sàll Moussa Pouy. ñu waxtaane fa li ñu séq. jour boobu éviter woon nañu Pam Ndong sax pour mu ñëw. mais heureusement ñëwut. ngir rek Pam ñoom da daa mel dafa dafa xaw a. non non gëm-gëmam la rek lay doxee. moom pour pour li li convaincre mu ñëw bëriwul li ma raté rendez-vous na lool. ah déedéet ñu ngi koy. xam li nekk مددا يا من له الامر بلا شريك كن لي ولي جمله الملوك قبلي في الدارين ما رجوت بلا تسبب وما ابتغيت من علي بالمعاء عيبي وبتلازم قطع الغيب وجيني اللهم فيهما المنى فلا وفي كلتيهما من الغنى ملك فؤادي ويد التوحيد وعجب الحلال كي اقودا اليك بالتعليم والافاد والتعني بالعلم والعباد خير لي يا عليم يا قدير في كل شيء انك القدير li kun bi amnin wa falaahin wal tasit yaa xayra maskurin wa xayra mal'ubid fakakta bil amni wa bil falaahi wa bi ziyaadati wa bir rabaahi habli amaanatan wa fawsan bi futooh dunya wa ukhra wal tajunni bi rubooh mudda hayaati bil hudaa wa bi tuqaa wa bi istiqaamatin sa'iidan zartiqaa wajjahtu wajhiya ilayka jaahila zaa'idatin anil ghuyuubi daahila li jilbi ilmi maa madaa wa maa yaji bil kasfi yaa rabbi wa ajjil faraji iksif li alladhi madaa wa yaati rabbi wa bil kasfi min aayaati ya Allaahu ya rahmaanu ya يا رحيم يا حي يا قيوم يا كريم حط ذنوبي ولتغطى عيبي وليجد بخير علم الغيب يسر دواما لي كل خير وسرمدا قني كل ضير طيب حياتي ولتطيب موتي وليجد بدرك كل فوتي وجه دواما لي ما يبشر بآية الكرسي يا مقتدر ناجيتك اليوم إلهي بها وأرتجي كوني غدا منتبها بالله والحي وبالقيوم جلي بالأعصم بالتفهيم صفيتني في سائر فلتصني في باطن ولي يكون yakun bil minani ya lahu ya rahmanu ya rahimu ya khaliqal asya'i ya karimu awaytani qalqa sukri qul tajud li bi munaya wa simami laka qut makkantani ya rabbi fil hurufi fa hab li tamkina fil ma'rufi nabbini ya allahumma ma anni yaghib ya man lahu sa'adatun ma al ghuyub allimni ya allahumma kull sa'a maqtatani ila qiyam as-sa'a li abadan ma li raditu wa qudi wa kull ma lam tadni anni dudi mudda hayati bi fawzin wa falah wa bi futuhin wa qina kull talah hab li ya wahhab إذا اليوم فراق ما يجرني للوم اسر دواما كل ما لم تبدني أني الساعة والتيم كالكني لك الغيوب ربي هرني علمما رديت عني ظاهرا أو مبهما